Modou am a seen xam naa kii daan bu yàgg ñoom ñaar dafa am ko tawat te date bi ñu ko jàpp man gëwuma sax ne boobu lay am tuxal di gis naa ko ci waaw <laughs> date boobu gis naa ci tuxal te làmb jooju làmb ju dooy waar lay doon waaw làmb ju cate la xam nga bëgguma di xuus ci làmb ndax ñun dañ ñuy wax rek ñuy wax loo waaye na la wóor ne man sëriñ la boo xam ne damay yëngu ci yeneen lu dul sax ay làmb kii laa xamul nu may def waaye làmb yooyu daal képp ku bëgg a xam ni mu demee boo jaaree fi nga war a jaar dinaa la ko wax mu yomb lool ñaari kaay yëpp nag wowuma kenn nag soxlu ma daanaka kenn ñëw fi sax di ma di ma sonal ak yooyu waaye làmb ji daal leer na bu yàgg jërëjëf sëriñ bi ci laaj bi